victime Ousmane Sonko ni ko xale yi toppee. ba mu jaral leen ñuy faatu cinquante et quelque faatu. Mm. xale yi amuñu lenn lu dul espoir ci moom lu dul mënal seen bopp. mënal seen bopp. très bien te xale yi dañoo gëm ni li fi nekk bu ñu ko jaaralee ci yoon danañ mënal seen bopp. ndax Ousmane moo leen ko wax kon moom bis bu xasoon ba ñëw. li fi nekk bay tax xale yi mënal seen bopp fukki xelam xalaatul mu ciy def safaan ba ndax xale yi lay am lay sóor ci loolu. très bien mais mais cest que euh, li ma bëgg expliquer foofu. loolu mooy kii bi loolu mooy pression bi mu muy subir maintenant bi ci des nag c'est intuitif personnel mu fekk nag nit ki. Hmm. fa ngeen koy xaar moom foofu la nekk toog est-ce que moom. Hmm. la mu doon. c'est-à-dire bu bëggoon doxalee neneen sax dootu ko du ko mën ndax moom noonu la ko yàlla bindee ah. gis nga danaa la wax benn affaire bu waxal ni ëllëg bu amee mu hmm. la bett mooy gis nga Ousmane Sonko ni ma ko gisee muy politique parce que man dama koy topp lu bari quoi comme damay jàngale science politique dama koy topp lu bari gis nga bu fal woon idée boobu ñu am sunu nguur la. comme waa Benno Yokk xam nga loolu day jeex Sénégal dina am ñu bari ñoo xam ni Pastef bi sonnoon nañ ci mais Ousmane du nekk logique gu ñoo bokk parti dama lay jox. dama lay gis nga bis bu falu woon kii ma gis nii. Hmm. amatul yaay amatul papa amatul grand frère amatul ay Pastef nga bokk amatul ay nungu siin nga bokk comprendre nga. Hmm. lépp da koy jaarale ci yoon. ki ko mérité moo koy jël même bu fekkoon sax c'était son piir ennemi dana ko ko jox. ngi ndax Sénégal kii genre boobu la moo tax ñi ko toppee nii defe ni affaire yi. Euh, hmm. cette idée de politique partage du gâteau. ñi ko xalaat ñoon bis bu Ousmane Fallo danañ am lu leen bett parce que ci nii du. du genre du boobu noonu mais mais kon li nga bëgg wax mooy ne kon ci campagne bi ñu jëm nii même ba ci tànnee fii ci ñi nga xam ñoo électorat bi kon nekkatul rek diglu programme. kon nekkatul rek hmm. maanaam. ñii wax ni fii laa jëlee réew mi fa laa ko yóbbu nekkatul loolu maanaam dafa am yeneen logique déedéet amatul yeneen logique yoo xam ne man da point sur la balance lan lay doon profilage bi su ñëwee ci profilage bi finalement euh, lan nga hmm. jàpp ne xëy na soo dégloo réew mi li ñu xalaat ni foofu lañ bëgg seen réew dem finalement dootul doon programme dootul doon kon lan la euh, xam nga lan va se jouer sur quoi euh, ci ñaari affaire économie et justice hmm. à dire ñaari piliers yi ñoo doxul Sénégal. ñaar wala boog bu doxee euh, doxul comme na ko sénégalais yu bari bëggee. mooy hmm. justice tey jii boo defoon sondage. la majeure partie des sénégalais ne sont pas satisfaits de leur justice. Hmm. parce que jàpp nañ ni pouvoir exécutif daf leen a noot. Hmm. comprendre que am na fu mu téye ña nekk ci pouvoir justice boo xam ni souvent la mu bëgg mën na koy am ci ñoom. bi ci des mooy économie xam nga pays pauvre nañ. ba léegi malgré que am nañ plan Sénégal émergent mu def ay quelques résultats. mais tey la ndóol gën a yokku Sénégal que 2012 le bilan bi Macky Sall di génne taux de pauvreté. Hmm. bi Ablaye Wade di dem on était entre les cinquante quarante cinquante et cetera. Hmm. tey ña nga ca soixante soixante dix pour cent. tey la sénégalais yi gën a pauvre tey la dund gi gën a metti est-ce que nga. tey la inflation bi gën a metti. tey la ñàkkum xëy gi gën a metti tey la sunu économie daanaka cër yëpp ñeneen a koy moom ñun car yi nañuy reyante. Hmm. léegi nag ñaar yi ñoom la sénégalais yi bëgg désormais hmm. et abadan daay man dappe lii moom dañ koy lijjanti par force léegi par force la léegi. léegi ñi koy incarné nag mooy Ousmane Sonko très bien mooy. mooy ah. mooy caractéristique Ousmane Sonko bi. xam nga du tax mooy mooy mooy da nga ni mouvement révolution mën nañoo bañ a xool lépp ci ki mais ñaar ba ñett. très bien moom mooy posture bi mooy posture bi ba lay wax nii <laughs> du ci njàng de. Ah, ah, Ousmane Sonko maa ko gën a jàng fopp mais mouvement révolutionnaire dama fee baax dem tànn ko du Ousmane Sonko njëkk a woote de. Ousmane Sonko. Hmm. avant muy pël am na ñu fi nekkoon de. waaw Ousmane Sonko li muy wax du moo ko fi njëkk a wax de mais dafa am. lu mu am te ñun ñoon ñëpp amuñu ko ba tax mouvement populaire bi ne ko yow te loolu xam nga waxoon naa la discours euh, parcours posture posture bu ñu dee jaay parcours am na parcours jàng na ca école yam war a jàngee hmm. def école d'élite mm. parce que ENAM ouais. école d'élite la bokk ci benn corps d'élite mm. bu nekk fa cadre supérieur kon donc am na parcours jàng na est hmm. am na discours mooy Ousmane Sonko fi mu ñu rawee ñun la majeure partie de opposition bi dont notamment man mi <laughs> euh, mooy discours am Ousmane Sonko ñun dañoo dégg wolof mais Ousmane Sonko dafa dégg sénégalais y a une nuance. Hmm. Ousmane Sonko ñun dañuy wax wolof Ousmane Sonko di wax wolof di wax sénégalais. Ah. moo tax discours am gën a audible ci gune yi kafaram la hmm. moo tax mu réveillé la mu réveillé ci ñoom mu jaral leen seen bakkan bi ci des nag mooy posture. mooy taxawaay bi nga fii la taxaw ci diggu penc bi. waaw te loolu saa yi ñi ko fi sañ bariwul de. te da bëggoon ci candidat yëpp. ñi ko mooy ñoom ñëpp tamit ñu yëkkati seen loxo. ah ne lépp lu ma waay. xamal na ko it waaw non non ci candidature yi. xam nga du bokk parce am na ñoo xam ni mosuñu joobee l' état. justement. am na ñoo xam ne su ma ko waxee xam nga ni. très bien du ma yàgg ci deux cent et quelques candidats très bien xam am na ñoo xam ne ñoom carrière privée lañ def. am na ñoo xam ne carrière mais maanaam da ko war a wax. tey Aly Ngouille Ndiaye da ko a ah, waaw képp kuy laaj réew mi tey Mouhamed da ko war a wax képp kuy laaj réew mi. Amadou Ba ko war a wax ñëpp tey euh, duñ mës a yëkkati seen loxo bi. <laughs> Ah. ah yii li Sonko def ah mais il faut être pour le faire ah ñun ñëpp ay sénégalais nañ xam nañu affaire yi ni muy demee <laughs> hmm. comprendre xam nañ ni muy demee Sonko li mu def nii. Hmm. c'est de l'audace politique. parce que le mouvement révolutionnaire kenn moomu leen ah sénégalais euh, ñoo la gën a intelligent ñoo ma gën a intelligent ñoo gën a intelligent Sonko. Hmm. ñoom dafa am lu ñuy wut rek di ko seet ci nit ñi nag. Hmm. xam nga boo ñëwee wax ñu teg ñett yi teg ko teg sa parcours teg sa discours daal di teg sa posture. daal di apprécier la ñuy apprécier tege nee. tege waaw ñun ñëpp nag. noonu la leen def waaye euh, ça veut pas dire que les les les autres hmm. mais li gën ba mu ñëwee. Hmm. lu baax dafay toxu. lu gën bu ñëwee li baax day toxu looloo dal lu mouvement révolutionnaire ak Ousmane Sonko. comme ñeneen ñi baax nañu. Hmm. mais moo gën a dajal yëpp li ñuy wax dajal. dajal waaw dajal yëpp. moo tax fi mu toll nii. Euh, moo tax moo tax moo tax Macky Sall. Hmm. gis nga euh, saa yi. Hmm. au delà de jëmmi Ousmane cest que Sénégal dañ ko war a refonder. dañ ko war a refonder. dañ ko war te bu ñu Ousmane rawee cest à su ma nee Ousmane euh, jëmm ji laay wax. mais cette idée. cette idée bi nekk derrière. ak engouement ak conscience politique bi nekk ak gars yi euh, li mu leen jaral dëkk bi baax par par force. te mën naa baax quoi grand. Hmm. xam nga. léegi am nañ pétrole ak gaz ak yeneen ak yeneen te yooyu sax après la ñëw mais damay faral di wax ci sama gars yi li fi jaarul yoon te waroon jaar yoon bu ñu ko tegee ci yoon rek on a fait la moitié du chemin. du chemin 50 pour cent li nag mooy liggéey. liggéey bien cest à ñu balaa ñoo liggéey sax. Hmm. li war a jaar yoon. te jaarul woon yoon na jaar yoon ba pare on aura fait la moitié du chemin léegi si on fait la moitié du chemin. ñu liggéey nag on se développe.